tàccu leen yaay faal tàccu leen ma yaay faal soxna Astou Boury Mbacké mooy yaay faal bi nu génnee ci élection présidentielle yi moom soxna asu wari mbàkke tur bi ñëpp xam nañ ko ci élection yi ci ay sorteem ak opposition am ci biir parti bi di APR taxawkat nii du nangu yenn yi la mu jàpp ni injustice la woon ba ma waxaloon sax mu bankoon loxoom tey ay activité am moom nag soxna asu buri mbàkke ginnaaw bi élection yi passé dafa sant loolu jóge ñaalem si wàllu politique ba moo waral sax nag mu ànd ak ñoom fayal leen ay billets du jël vol dem sa Maroc ngir nag noppaliku ci ndaxte jàpp nañu ni suñu ko bàyyi seen taxawaay rafetoon na si ginnaawam moom sax nee na jàppewu leen ay militants waaye ay fidèles la leen jàppee fii nag si Maroc séjour bi nu fi am profité nañ si dem ziare mausolée Cheikh Ahmed Tidiane amal également séjour touristique bu am solo dem seeti lieu yi gën a rafet si royaume chérifien bi soxna Soubouri Mbacké nee na nag su amee dafa fekk ni moom de daa si monde bi partout. Europe Amérique Asie ba ci pays africain yi fu nekk la nga ko doon woowee ñooñu nag am cofeel ci moom bëgg ko loolu ñoo dajale seen benn ak seen ñaar jàppale ko ko ak ay moyens propres moom soxna si Buri Mbàkke amit yeneen bëbët ci kanam ndax fi mu toll nii soppe yi ñi gën a yaatu ci biir adduna bi ak ci biir réew mi ba moo waral mu ni ci kanam tuuti dina leeral position am xool ni muy dukkewaat ci politique soxna asu buri mbaake wax leen yaay kii mooy yaay